<laughs> Ibrahima euh, euh, am na lu am solo lu fa wax euh, du Ba accusation yi ñu ko doon teg ci présidentielle nangu ci woon kàddu nangu soo yëgtu benn kaddu bàyyi ba élection yi jàll mu si yëgti kaddu te ba tey ji dafa mel ni day layam layami daal fàttali maanaam ñëpp xam nañ lu ko handicapé te loolu ba tey ji nangu ci leeral waaw bon euh, bi vu sànq ci écritel télévision il disait que j'ai pas corrompu des magistrats xam nga j'ai pas corrompu des juges bon je pense que c'est le même c'est la même ritournelle qui revient donc euh, effectivement comme Moustapha l'a dit au-delà de ça parce que loolu ça a été fait il y a eu des accusations il y a eu une commission d'enquête qui a été mise en place ensuite il y a eu la plainte mm -hmm. d'un des juges Cheikh Ndiaye en l'occurrence euh, boo xam ne après dafa neutraliser la procédure parlementaire donc li ci xewoon xewoon xewoon na ci bon maintenant ce qui s'est passé entre eux ba nga xam ne après il y a eu euh, mm-hmm. nga xam ne ñoom ñoo ko doon accusé Madiambal nee na loolu moom xam na ci dara mais ñoom ñaar ñoom ñaar rek ñoo am sañ-sañ di ci wax moom euh, Amadou Ba ak euh, ak ak ak Macky Sall te waxaguñ ci maintenant au-delà de ça et Moustapha la la la la la dit c'est à euh, Amadou Ba aujourd'hui d'assumer sa part de responsabilité bon peut-être loolu aussi dina peut-être affaire bii du doon responsabilité moom rek. Mm-hmm. ce ce serait une responsabilité collective parce que j'ai entendu aussi des cadres de l'APR ou de Benno Bokk Yaakaar dire que ba léegi ils n'ont pas ba situer les responsabilités. Mhm. je pense que aujourd'hui ce qu'on attend li ñu xaar ci ñoom. Mhm. ñoom la coalition qui a été défaite. Mhm. c'est que ñu def des au lieu de de de produire un livre blanc pour parler des réalisations que ñu def aussi bon loolu baax na sax gaa. mais que ñu def aussi benn livre blanc pour parler de de situer les responsabilités des uns et des autres dans leur défaite. waaw je crois que la ça ils le doivent à leurs militants ils ne le doivent à leurs militants mhm. et bu booba je crois que Amadou Ba doit euh, euh, euh, doit y jouer euh, sa part donc toute sa part euh, en euh, assumant la responsabilité qui est la sienne d'autant que son parti s'appelle nouvelle responsabilité <laughs> je pense pas que ancienne responsabilité boobu mu nar ko pour créer une nouvelle responsabilité parce que de toutes les façons d'ici à ans à chaque fois on va lui demander donc autant assumer euh, affronter la réalité donc assumer li nga xam ne moom la moom moom mooy part de responsabilité ci li nga xam ne moom mooy que euh, euh, parce que nag c'est c'était lui le candidat c'était lui le candidat c'est lui le candidat qui a qui a été battu dès le premier tour et le candidat du pouvoir battu dès le premier tour c'est une c'est quelque chose d'unique dans l'histoire sénégalaise on entendait le, candidat de l'opposition battu et je crois que c'est Doudou Salmon Fall qui disait Euh, la le conseil constitutionnel est après pour dire que dès le premier tour bi sax bon je crois qu'il est décédé hein. Mm. Dieu ait pitié de son âme le conseil constitutionnel est après pour dire que loolu sax moom je crois que loolu loolu bokku ci woon. Mm. ba ba nga xam ne loolu sax bokkul woon ci kii bi ci quand ils ont fait le le, le truc de du greffe. euh, la là. Oui. Quand ils ont dressé l'acte, ils ne l'ont Mais là, on voit qu'il y a un candidat, du, pouvoir sortant qui a été battu dès le premier tour. Et ce candidat-là, il s'appelle Amoudouba. Donc d'ici ans, à chaque fois qu'on le verra, ou bien à chaque fois qu'on l'entendra parler, on va l'interpeller sur sa part de responsabilité dans cette ci duma yi ñu ko duma en voilà alors euh, même bi. au lieu que parce que au lieu au lieu charger comme Moustapha l'a dit. ñuy continuer qui est responsable de tout de de de tout et de rien au niveau de de de, de leur coalition. d' accord d' accord Mame Birame Amadou Ba mën na compter quand même ci benn allié bu sûr mi la presse. waaw mais est ce que allié bu sûr la. la presse pour moom. waaw <laughs> la presse mooy allié bi gën a mooy sur Sénégal. sur sur le pour moom mais mais mais mais man euh, euh, jàpp naa ne euh, même bu nekkee Amadou Ba am na une grande responsabilité ci defetam. Mhm. jàpp naa ne képp ku nekkoon candidat Benno Bokk Yaakaar. Mhm. defet ka également ngay am maanaam sénégalais yi ñoo doyloon sëkk sëkk sëkk ci li nga xamante ne ni moo fi doon xew loolu leer na que mu nekk Macky moo nekkoon candidat wala keneen ku mu ti jël jàpp naa ne défaite bi mënul woon a ñàkk sénégalais yi ñoom ñoo soxla woon ce changement là mhm. xëy na kay Macky Sall nu mu ko defee eh, def na de sorte que bu ñu naan défaite am na moom ñu ñu ñu bëgg cee génnee responsabilité am comme quoi que euh, Moussa Fa nga koy wax sànq ñenn ñi nga xamante ni ñoo faral moom dem ba naan à un moment sax waa Pastef la faral. Hmm. alors ko loolu teguwul fenn. Amadou Ba ak euh, euh, Macky Sall ñoo ànd daanoondoo te jàpp naa ne li tax Benno Bokk Yaakaar nit ñi dem ba wóolootuñ leen suur këll si ñoom c'est parce que Macky Sall moo fi def bilan ak Benno Bokk Yaakaar boo xamante ni c'est un bilan catastrophique. Hmm. Maintenant par rapport ak euh, cette presse là. xam nga bu la neexee moom nit ñi di la. te te déjà bu nekkoon presse boobu mun na la assurer dara jàpp naa ne doon nga ko am ci élection yi passé mhm. gis naa fi sax ñaari journaux yu publié ne Amadou Ba gañ au premier tour mhm. <laughs> mars 2024 bi mhm. donc presse boobu xëy na am na foo xamante ni mun nañ la fa jàppale nga def sa manifestation ñetti nit nekk fa ñu xëy defal la à une yoo xamante ni la marée humaine <laughs> ma ngoog naan la marée humaine côté boobu mën nañ la jàppale mais bu ñu demee ba nga xamante ni desul dara lu dul mobiliser les Sénégalais pour aller voter ça c'est ça c'est autre chose te jàpp ma ne yi sax fi mu toll nii daanaka presse bu amul crédibilité boo xamante ne ni mën na wax sénégalais yi lu ñu gëm bu ñu lay faral dañuy dem ba sénégalais yi dootuñu la weddi la sax yow moom ñuy faral. Hmm. tout simplement. waaw loolu de maam mbiram léegi crainte la c'est-à-dire que bu presse bi waxee ci lu baax ci yow sax ngay ragal la. bien sûr. <laughs> Moustapha beneen mbir bi euh, quand même euh, est-ce que ñoom jàng nañu euh, victoire u Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak ascension bu fulgurante bu Pastef am nga gis parti boo xamante ni nit ñooy jël seen xaalis di ci cotiser ak te ñoom seen façon politique mooy di mobiliser ay nit di leen jox xaalis ak yooyu ba ñenn ñi sax bu ñu leen di rejoindre euh, par rapport ak euh, lu mu leen di jox la wala lu mu leen di dig la est-ce que ñoom euh, jàpp nañu wala sax liir nañu quand même signaux yi nga xamante ni sénégalais ñu ngi koy envoyé tey depuis quand même création wu Pastef ci langum politique bi. mais loolu mooy li ma la wax sànq déni bi may doon wax sànq Ibrahima Anne wax na ko moo di ne un parti politique wala une bonne coalition de parti bu demee ci élection même su ko gañee dafa war mu évaluer ko. évaluer ko sereinement et en toute froideur. pour diir lii moo tax ñu gañe wala lii moo tax ñu perte. localité sàngam lii ak lii moo tax ñu perte wala lii moo euh, tax suñu discours jàllul. loolu dafa am solo e soo déggee amado Ba li muy wax. mooy y ba léegi moom mënagul intégrer que ni. ñoom Bassirou Diomaye Faye ñoo leen mën duma leen. Mhm. moom dafa jàpp ne ñoom dañoo dañoo perte parce que y avait des contradictions entre ñoom. Mhm. je ne sais pas man je l'ai écouté hier ah. Mhm. Euh, il y avait des entre ñoom. loolu boo ci nekkee da ngay nekk si si déni parce que Pape li nga wax tam am solo trop pour man mooy la défaite de deux mille vingt quatre. Mhm. mais commencé wul deux mille vingt quatre. Mhm. commencé wul deux mille vingt quatre. ñun ñi nga xam ne euh, on n'est pas je ne sais pas spécialiste des sondages on n'est pas xawma lan de la politique mais combien de fois la ñu toog fii di wax ne. le pouvoir de Macky Sall est impopulaire. et que le seul la seul chose. Euh, man je l'ai dit Ibrahima euh, traduire na ko ci benn livre la seule chose bi nga xam ne moo mënoon a empêcher le Pastef mu jël le pouvoir mooy mooy mu bañ am candidat. Mm-hmm. ça on l'a dit tellement de fois. Mm-hmm. mais ñoom du côté du pouvoir ils ont toujours pensé que ni le Pastef est son leader. mais si ay xale la yoo xam ne ci réseaux sociaux yi rek la yem quoi. Mm-hmm. ils sont là à dire des choses mais après bis bu ñu demee ba ci pandaw ga bis bu ñu demee ba ci les choses sérieuses ak si. doo leen gis. man quand j'ai euh, ci biir élection yi Saint-Louis. ma croisé Ousmane Sonko côté Ngaye ou Ndande je pense. ñëw Tiwaawan ñu ne ñu Ousmane sonk léegi la fi jógee bi ñuy ndog la fi agsi. ñu ne euh, il doit revenir no il doit aller à jusqu'à Saint-Louis pour revenir à Thiès. quand j'ai vu les images de Thiès ñu ne Bassirou Diomaye fay est arrivé là-bas euh, defe naa Ousmane mu jul dem Diomaye moo fa agsi. Mhm. est arrivé là-bas à sept heures le matin. ma gis ay nit génn topp ko ak seen serviette yi ñu fanaanoo. Mhm. ma ne mais ñii li ñu def moo gën a jafe foofu dem voté ji dimanche topp Ousmane Sonko pendant toute une nuit sur des kilomètres et des kilomètres Bassirou Diomaye fay ñëw war a ñëw cees nga toog veille la nuit wala nga yeewu fajar di julli ji ñu la na nga départ dem fekk ko loolu moo gën a jafe foofu dem voté ji à partir de cet instant là je me si les Sénégalais votent normalement ce pouvoir là day daanu bi ma ñëwee fii le dimanche jour élection yi huit heures man ak Abdoulaye Bob ñoo nekkoon à l'antenne. Mhm. Abdoulaye Bob mi ngi may dégg. mu ne ma gars yi ñi ngi commencé daw di songu. di songu bureau de vote yi. ma ne que le pouvoir de Macky Sall jeex na. ça c'est pas une bonne nouvelle pour un pouvoir sortant. Hmm. mais malheureusement ñi nga xam ne ñoom ñoo yore woon ce pouvoir là. ba léegi intégré guñ ces données là que ni le Sénégal dafa changer fondamentalement. Hmm. les jeunes sénégalais dañu changer fondamentalement. et que en réalité ils en avaient marre d'un système. Hmm. système boobu Macky Sall ko woon mais képp ku mu tànnoon teg la fa waxuma ne da ngay ñàkk de automatiquement mais pour nga gagner dina nekk lu compliqué trop et boo déggee Amadou Ba mu wax démb je ne sais pas ba xam nañ ko comprendre dof doflu mais il ne l'accepte pas. Mm-hmm. il n'accepte pas ba léegi victoire Diomaye il faut ñu seet ku ko jiiñ ak affaire yooyu. Mm, te pourtant man li ma gëm mooy. Mm-hmm. bu nekkoon avant élection yi. période inscription ci liste électorale yi ubbi nañ ko six mois yi mu doon doon. doon permettre tous les sénégalais yi ko bëgg ñu dem inscrire du. oui ñi doo ko am 18 ans ñi nga xamante ne nii changé nañ lieu de vote ñu permettre leen ko. Mm-hmm. jour vote bi ñëw. li am ci bureau de vote ñu yokk ci yeneen cinq mille Benno ko Yaakaar dinañ ko dóor dóor yoo xamante ne nii jàpp naa ne cinquante quatre pour cent yi ñuy wax sax boo moytul dinañ ci teg yeneen vingt pour cent comme dóoruñ ko dóoree Touba comme dóoruñ ko dóoree Touba parce que comme ni ko a waxee euh, à un moment dafa leer avant que même ñuy dem ci élection nga xam ne sénégalais yi dañu soxla véritablement changement mmh. Moustapha mu ngi koy wax euh, Ousmane Sonko day jaar fenn ñu ko fay xaar ba six heures du matin pendant ce temps Benno Bokk Yaakaar pour ñu mobiliser il faut que ñu defar t-shirt casquette génne sandwich génne paas. mais mais mais xam nga xaar bi sax xaar bi sax nañuy wax euh, maam Birame mën nañ jàpp ni sax dañ kumpa la mais euh, kiy jël alalam di la ko jox nga soxla. Euh, xaalisu campagne. ñu jël plus de trois 300 millions dajaleel la jox la loolu rek wax na tiital réew. nguur du moins. Ah, ma ngoog te <laughs> te ce par hasard ah boo seetloo Ousmane Sonko daanaka problème yi fi mujjee am. li ko doon gën a indi à chaque fois mu entamé nemmeeku tour balaa moo dem ci ñaari région nga gis ñu def le tout pour freiner ko bu ñu waxee également dañuy def euh, cagnotte pour parti bi mhm. nga dégg ministre de l'intérieur euh, argent sale ak blanchiment d'argent loolu dañ koy tere boo leen moytuwul dañ ci sut seen parti mais mhm. loolu yëpp c'est parce que xamoon nañ engouement populaire mais Ousmane Sonko bu ñu demee ba benn moment ñu barricade ko këram yu bëri ko ñu ko koy bañal mhm. c'est parce que justement dañoo xam ne fu mu génn mbooloo mi topp ko te dem nañu ba benn instant boo xamante ni jàpp nañu ne mbooloo mi su génnee topp Ousmane sonku te affaire bi day leer ba waa bitim réew sax nañ ci teg seen bët. Mhm. ba yenn yi nga xamante ni doot nañ ko permettre à Macky Sall dootul mën a te nekk. moo tax effectivement engouement populaire boobu te wone nañu ko man jour bu Basirou président Basirou Diomaye génne ak Ousmane Sonko. Mhm. lii fi nekk ci ay nit. Mhm. dama yaakaaroon dafa am ñoo xamante ni ci yeneen pays yi lañ jógee. <laughs> <laughs> ñoo doole doole ku ñi ñu ngi ñu ngi bëri. mel ni ay. Euh, ay fourmis. donc ay 3 heures 4 mais bien sûr. Mm-hmm. donc euh, ñu comprendre que li fi xew du ay élection kese man dama jàpp ne révolution la une jeunesse qui en avait marre de li fi daan xew depuis un certain temps di xaar tout simplement un antisystème boo xamante ni c'est confirmé ñu balayee li fi ne te loolu moo am effectivement. Mm-hmm. mais même loolu je crois que même loolu loolu loolu sax mën na mën na mën nañ ko évaluer. Mm-hmm. parce que euh, il est arrivé que des régimes disent par exemple toog def seen genre catharsis. c'est parce qu'on a été arrogant seen ndëpp voilà def seen ndëpp voilà on été arrogant on a fait, on n'a pas on a, n'a n'a pas a été dépassé par la réalité mm-hmm. que lii lii li lii xew mais en tout de cause man je pense que euh, lu munul ñàkk la ils peuvent pas faire l'économie d'une euh, d'une d'une et lii ñuy wax ni le pouvoir ñoom xamoon nañ ko ils avaient tous ces sondages là parce que ñenn ñi sax dañu li ñuy naan mooy Macky Sall quand il a un peu euh, se coaliser avec les, euh, la, la comment dirais-je wàllu le groupe parlementaire wàllu bon pour reporter l'élection présidentielle ak yooyu yëpp c'est parce que il avait des sondage il avait des sondages des résultats que leur seraient pas favorables. Mhm. donc loolu moo taxoon mu bëggoon peut-être guddi guddal jël ji bon xool peut-être nan la ñu defaraatee toogaay yi ak yooyu mais euh, la réal la réalité était que au, au mois de mars 2024 donc euh, tout pour tout observateur politique euh, bo boo xam ne boo xam ne avisé xam nga xamoon nga ne bu ñu demee élection ne résultat bii ñu am ni warul la 54 euh, ak kii bi waru la waru la bett. d' accord d' ñu jëm ci élection législative Moustapha parce que ñu ngi jëm ci tasum assemblée.